bismillahi irrahmaani irrahim alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala ashrafi alxalqi sayidina wa xabibina wa shafiicina wa maulana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa saxbihi wa sallim ixwati al aizza asxaab almaali samaxat almustamicuun asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokk yi te di ñuy déglu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare di leen balu àq te di leen bal àq di ñaan yàlla yal nanu nu yàlla boole jéggal Sud FM seen rajo 98.5 kaddu gi bàyyi ko fii ci ndakaaru dellu siwaat na ak yéen seen émission bi ñu tuddee xistatul anbiya te mooy jaar jaare yonent yi alayhimu salaam te ngeen ci ànd te ngeen ci baaxoo di ci ànd ak seen mbokk Oustaz Alioune mbay ginnaaw loolu ñoo ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër ñeen di ñaan yal na yàlla faj aajo yi teggi tiis yi te saafara jàngoro yi yal na nu yàlla gën a xiir ci boppam aar ñu làq ñu fa yàq yëgul yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqule lu nu am yàlla na nu am yàlla lu nu ñàkkit yàlla na nu am yàlla lu nu jaamu yàlla li ci sellul yàlla na ko yàlla nangu ginnaaw ba mu ko sellalee ba yéegal ko dinu mooy yàlla mu néew ak mu bari yàlla na yàlla jéggal te suturaal ñu àdduna ak àllaaxira bi jaaxe sayyidil wujudi wa alami shuhudi ginnaaw loolu nag mbokk yi ñu jéem a ñëw ak yéen nag ci fi nu yamoon ak yéen ci ajjuma jee ñu génn toppoon ngeen ñu nag bi nga xamante ni Moussa jóge na nag ca na sunu borom armé ko ginnaaw bu mu ko dugalee stage jox ko yet wa muy kéemtaan mu jox ko itam torche ba nga xamante ne moo doon làmp ba mu dugalee ca poosam rek mu mujj nem ne eh, soppaliku faaru oto mu leer nañ mi nga xam ne bu la ko dee bu la jàkk tàllalee loxo bi rek dangay mel ne faari oto 4 x moom lañ la teg loolu nekk kéemtaan ci jooju jamono sunu borom ni ko nag demal ginnaaw boo nga xamante nga sa rakk jooju di Aaruna def kab yonent nekk nab yonent déggoon ngeen ñu ba mu ñëwee Aaruna gàttandu ko foofu ci niil ci dex gi ñu akalaatante ndeysaan nuyoo kenn ku ne feeñal nam ma nam ci sa moroom ndax gën nañu gise ëpp na fukki at ñu dem ci seen yaay fa lañu fanaan seen yaay togg leen reer ñu reer reer bu neex ndeysaan ñu fanaane waxtaan ba bët set ñu xëy nañ ñaan audience bi ñu ñëwee ci pale bi ñu wax wax na ni ko am na ñaar ñoo xam ne dañu la bëgg a gis euh, kenn ki sax day dafa mel ni ab dof ndax sikkim baa ngi sëq bopp baa ngi jaxasoo njañ li ki mu daa xaw naa xaw na nuru comme su doom jooju nga fi yaroon daal xaw na nuroog moom moom daal dafa mel lu xaw a tëlbati dégg nga rek <laughs> ni ñu ko présentation <laughs> imam Mor Seck <laughs> nee na ma ndeysaan loolu la ñu présenté Firawna diñu kaw da leen laa xaw ab dof eh, Firawna ñu dugg si leen ñu dugg si bi ñu dugg see na di xool Muusa di ko xool di ko xool ba yegg mu ni ko man Anta qui êtes-vous yow la kan Moussa ni ko ana rasul rabbil alamin man maay ndawal yàlla mi nga ne moo moom mbindee fi Firawna di ko xool di ko xool di ko xool ba yegguñu alam nu rabbika fii naa walidan yow xanaa yaa fi nekkoon nekk sama doom ñu yar la fi ci pale bi di la xottil di la jox ngay lekk di la toppatoo musaa ni ko waaw mu ni ko wala bista fiina min umrika sinin nga def fi ay at yu bëree bëri mu ni ko waaw mu ni ko wa faalta faalta kallatee faalta anta minal kafirin nga def fi toj toj toj penc wu nga def fi njaaxum mu ni ko naam dinga nga rey fi bakkan nit nga rey ñu naan yow laa du yow nga ni mëy kenn gisatu la Moussa ni ko naam ñu tekk Moussa ni ko naam faaltuhaa izan wa ana minad daalin loolu yi nga may wax de dama ko def waaye bi ma koy def ci njuumte laa ko def defuma ko ngir tey defuma ko ngir lenn fafarartu minkum ma daw ba ma xamee nag yéen nii li ma def réyal ngeen ko dramatiser ngeen ko ma xam ne man ngeen ma cee lor man ngeen ma gaañ te yéen la ngeen def gisu leen ko waaye man li ma def ngeen gis moo tax ma daw bi ma dawee nag wa wahabali rabbi xukman wa jaalani min al mursalin ci la ma yàlla dawee ak xam-xam jox ma xikma def ma may yonent mu yónni ma ci yow yàlla ma may xam-xam boo xamante ni daa man a xàmmee dëgg mën a xàmmee caaxaan loolu moo waral yàlla ni mën naa ñëw ci wax la Moussa ne te yow li nga may ñaaxe naan ma maa la yoroon maa la yar maa la def lii maa la defal la yow loolu yaa ko jëkk a def ndax yow yaa jëkk a wedd yàlla ndax yàlla moo la bind may la nguur yëkkati la defal loo kenn mënta defal nga xëy xëy weddi ko moom moom yàlla ni yow yaay yàlla non seulement sax ni yow ak keneen mooy yàlla jaamuloo bant jaamuloo xërëm mais danga nga fëgg sa dënn ne yow yaay yàlla te yow xaman sa bopp doo xaman doo yàlla kon ko yow yaa jëkk a weddi xéewal te sax yow xéewal gi ngay wax nan maa la defoon léeg maa la defoon laa man leew na ma doom ndax man samay maam ak samay maamaate maam tey nu dëkk bi mel ñoo ma ñoo redressé ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo redressé économie dëkk bi fexe ba dëkk bi civilisé teg leen ba ngeen nite njàngame koom-koom beeg développement yépp samay maam ñoo ko fi def te wax na dëgg nag yonent yàlla yuusufa tey boo jàngee xissa euh, ci alxuraan da nga xam ne yuusufa li mu liggéey ci Égypte tey kenn mënul tudd Égypte loo yonent yàlla yuusuf léegi la waaye dëkk yi gënoon na développé yi jëkk a civilisé jëkk bind jëkk a développé Égypte ci la bokk Afrique ngoog kon nag man loolu ma doon lekk lu ma lew la noonu ma mel yaa ma ca jiitu ah Moussa ngi bëgg dëgëral di Firoon di ko xool ni teg bee mu ne ko waaw bu ma rabbul alamin kan kan mooy rabbul alamin Moussa ni ko rabbu samawati wal ard wa ma baynahuma in kuntum muqinin borom bi ma lay wax waxuma la sax rabbul alamin mais mooy borom asamaani suuf asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar ak li ci diggante yi bu fekkente ne da nga seen xel Firoon daal di geesu nii euh, de ana tasmaun eh yéen xanaa déggu leen ki li mu wax mi kii dëgër na fit de dégg li mu wax mooy ay rabbi kii dafa dof de Moussa ni ko yemu ma foofu rabbukum wa rabbu abaikum al awalin yàlla ji may wax mooy sa moo moo moo moom moom sa baay moom sa baay baayam sa baayaate baay ak say maam ñëpp yàlla ji may wax moo leen moom firaw ni bërët di mu yow man ngay saaga man damay sa morom ba nga maa saaga yow koy saaga dégg xaman dégg ki li wax man ngay wax sa baay sa sa baayu baay ah daal di noonu Firawna daal ñëw taxaw noonu xaman ah, ñëw taxaw ci itam xam nga buur boo gis ñaar rek am na am xejjam moo xamante ni tooxi doonu gune moo cay dugg Firawna daal di xaj bakkan yi commencé xonq nag muy ñàngal ko bët yi mu ne inna rabbakum lazi ursila ilaykum la majnun say seen yàlla ji leen yónni ci man dafa dof ah il est seen yàlla ji dafa dof Moussa ne ko Firawna waxuma la rabbu abaa'ikum awwalin waaye rabbul mashriqi wal maghribayn wa maa baynahuma in kuntum taaqiluun yàlla ji ma lay wax moo moom asamaan moom moom moom penku moo moom sow moo moom li ci diggante penku ak sow bu fekkee am nga xel war nga xam ni kii ma lay wax du nitu caaxaan du yàllay caaxaan du yàllay bant du yàllay kuur firawn ne ni teg bàyyi muñ ko la in taxasta ilaahan xëyri la ajarannaka mina masjunin boo fi jéemee imposé benn yàlla bu dul toppati li nit ñi wax ak ni man mi may yàlla dinaa la boole ci ñu ñuy nit ñi ñuy tëj dóor leen ba ngeen dee daggat leen morceau par morceau loolu rek laa lay wax Moussa ni ko awalam ci oxtu ko bi shay'in mubin xanaa boo ma laa def loolu dama laa wonul booba lu tax lu la jommal xanaa bon ma la wonoon miracle kéem daan bu tax nga xam ne yow mënoo ci man dara lenn nga mënoo ci man Firaaw ne ko miracle mu ne ko waaw mu ne ko yow <laughs> yow mais Moussa yow kañ nga fi juddu kañ nga fi màgg ba man ma fi wan miracle bu ma jaaxal ah <laughs> yow quand même faati bihi in kunta mina sadiqin du ne nga xam nga dara defal ma gis wax ji bari na defal ma gis. ndege booba Moussa mi ngi yor yat bi ka sunu borom doon wan ca tuuru Sina fa alqa Moussa asaahu fa izaa hiya sabaan mubiin rek Moussa daal ni wër yat wa mu yoroon ba Moussa ne yat wa rek ndeysaan tt mu soppaliku jaan joo xamante ni moo raw yeew jaan ju wér naan baalaw baalaw fees dell pale bi at malaat ma bayna janibi qasri xata raa baadu man kaana xaarij al madina raasaha min misra ba ñi nga xamante ne sax ñu ngi nekk ci ginnaaw capital bi muy misra égypte na ñoo xamante ne ñu ngi seen ŋaamu ŋaamu ŋaam bi nga xamante ne mooy bi bi bi bi jaan je ñu ngi seen tuñ mi tuñ ma ca kaw ñu ngi koy seen ba ñëpp na waa lëy lan la fekk na ñi xamul xamuñu fekk booba firaw na yetu Muusa moo koy jommal Firawna dal di daw rek laxas ci xaamaan kottu xal xaamaan rek kàllaami ñoom ñaar ñu ànd nit dal daanu tiit ñu taw Firawna naan pat pat pat pat pat euh, ko nekkatee ko taxawal taxawal bu tiit aca dakkindelam rek aca cooxeen cooxeen bi ngol te yari dakkindelam rek aca noppin daal ni Moussa euh, téye sa jaan ji bàyyi li ngay def téye sa jaan Tiis Jaan li kenn ko def yow li kenn ko def mag ah ah yow ñuy wax rek pare ko ñu ngay def yi Tiis Jaan yi teel bu bëgg ñu waxtaan waaw teel ñu waxtaan après teel di nax di naxtaan Moussa di Moussa daal di ñëw nag jël yetuñu moom tam taxaw nag di leen xool Firawna daal eh, di di xool Haamaan ah, kii moom kii moom yéeme na de ah, ah téema koo koo gëm téema tuub boog Haamaan ni ko gëm ëpp na lool ñeme nga lool. yow xalaatu yow bul def loolu yow yow ëpp nga loolu yow dañ laa war a topp waaye war a topp kenn seetal jooju wax rek yow war a topp kenn te sax yow noo mën a wootee ne yàlla nga ay ati ati at nit ñi topp la ci nga xëy xëy bëgg a topp booy bu ndaw bi nga xam ne booy bii yaa ko yar fii ci sunu kanam muy xale bu ndaw xamul dara ngay fay yaayam nga ngay fay ku ko nàmpal di ko toppatoo wutal ko ay médecin mu màgg ci sunu kanam nga xëy xëy bëgg koo gëm gisal lii rek <laughs> leen lii kenn bi ah, démb nuroog tey démb nuroog tey léeg-léeg nga gis ndeysaan ay nit nit ñoo xam ne nii dara du seen mbir lu may fàttali nit cosaanam xanaa kii du jiw xanaa yaa fi yaa fi nekkoon nangam ah te nit mën nga koo jur sax mu xam loo xam loo wax naa ko léegi ci biir wax ji nit na nga ko jur ba pare mu xam loo xamul woon wala yàlla def ci moom lu mu deful ci yow lu jar a xel la lu jar a bàyyi xel la ndeysaan waaye ci biir wax ji rek Moussa ku bari yërmande la Moussa ne ko te sax yow Firawna euh, sama borom nee na soo nangoo ni yàlla kenn la yàlla dina la delluwaat sa nguur te dina la fexeel ba nga nekkat xale bu ndaw te mu gën a neexal sa nguur gi nangu rek ni yàlla kenn la donc di nangu ni doo yàlla nangul ni yàlla kenn la gis nga mais gis nga mbokk yi gis nga lii mu yombee noonu la jafe woon ci firaw la ndax firaw na dafa am feebar mu àndaloon mooy feebaru rëy ndax booba wan na nit ñi ni moom mooy yàlla kon rusati na taxaw nan di dootul yàlla loolu nag ba léegi am na ci biir nit ñi waaw wax wax ju rëy ñu dem ba ca biir nga am honnête bu toll ni ñëw ni ah man kat maa ko waaye dama juum hay lu jafe nag nag mën kat dama juum bàleen maaq surtout nag ci kilifa boo demee ci kaso yi am na nit ñu ñu tëj ci erreur waaye jomb nañu rectifier dossier yi ngir sauver honneuru kenn nit nga yàq ci carrière doomu aadama ci koñ yi ci gox yi mën nañ ci yàq turu nit yàq ci turu kilifa jiiñ ko loo xamante ne laalewu ca taqiwu ca waaw waaye taxaw am honnête nii ah ñun kat la ñu foogoon amul wala ñun kat nangam nangam amul am na ñoo xam ne jombal nañ ko seen bopp ko defee ñu bàyyi erreur ba muy dem rek ñëpp ne ci erreur ñëpp gàddu bàkkaar loolu dafay faral di am surtout nag suñu ji nga xamante jamonoy wax la te kuy wax rek songu presse bi songu presse bi rek lu la neex wax yàq deru kilifa dàqu ilimaan deru sëriñ boor am de baasi nitu yàlla ñi lu waaye neex teg seen der lu neex waaye bind ci seen der yàq seen der ba ñu naan ay imaam yu def nangam jël ay imaam di leen ji ñi góor jigéen jël ay nit ñoo xamante ni ñu baax la ñu nekkal fi diine ji ñu xëy xëy dal seen kaw ah ngir lan seen propre intérêt am na lu ñuy défendre rek loo xamante ni bëgg nañu mu jàll te diw mii tànk mi ngi fi di wax ah loolu du mën a jàll kon nan fexe nañ ko éliminer fexe ba teg ci deram lu ko nit ñëpp jéppee bu ko defee mu noppi nañ ko noppiloo nañ ko dañ koy def ci imaam yi dañ koy def ci waxkat yi rajo yi dañ koy def fii ñëpp lañ koy wax fii léegi dégg am nit nit ñëpp xam ñu xëy di ko fexeel di ko fexeel di ko fexeel ba xëy noppiloo ko ndax am na loo xamante ko tegee sab der nit nit rek la loolu ay pexe la nooy def am na foo xam ne doo dafa wax yooyu mi ngi daw ci dëkk bi waa tax itam ñëpp ñëpp ñu ci bari tey ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci ñu ngi ci nous sommes exposés am na duut yoo xam ne doo ci duut baaraam am na yenn sax soo ci wax sax dañ naan ah, ah moytul de moytul de nangam nangam nangam ah, ah moytul de yooyu yëpp yàlla rek a jara moytu fi yàlla rek a fi ne boye boonu complot ba rey la suul la bis dana jot ñu fekk la ca kanamu yàlla dund koo xamante ne du jeex dund goo xam dafay sax loolu moom am solo booy ba ñu kompaloo ba wa ba noppi loola bu mu tax mukk nga ñàkk yàlla yàllaa nga fi bu la ñëpp doon bàyyi ku ne wan la ginnaaw te yàlla bàyyiwu la bul faale bu la ñëpp merewoon te yàlla merewul amul benn njëriñ yàlla rek la moo fa war a mere nit nit koo ko tiit wala nga saaj waaye ku dul yàlla leneen loo wax sa wax waxi bant yee ñoo yem maa la wax lii de yàlla ko wax jeex na bu la ñëpp doon yëkkati nag naan yow a yow a yow te yàlla ne patat say mbir doo du mu yàgg-yàgg ci xepp rek ngay def daanu ngay def doo yëg mukk kon nañ si delloo mbir yi loxo yàlla yàllaa fi nekk yàllaa fi nekk bu buur bëggee lool lool lool ba di la di la nengal te yàlla àndu ci doo dem fenn waaye bu la buur bañee te yàlla ni yow fors force nga doon moom te na ngeen xool Moussa mi rek fa muy mujje incha gis nga bii ko Moussa sama borom de neex na soo nangoo ni moom la rek mu delloo la mbir yi xaaman ah, ne ku way mu yow loolu bu ko xalaat mukk Firawna daan ne moo jëkk ne xaaman ah asawaay ah, téemaa tuub nag yi neex na kat xaaman ah, ni ko ah mukk tuub loolu kay moom moom bu ko jéem a def mukk de na nekk xale gi mu lay wax naa da nekk xale mais loolu yomb na loolu mën naa ko euh, euh, Firawna ko noo koy defe mun ko xaar rek ma wutal la ñuulal ma wutal la ñuulal fexe ba ñuulal sa bopp bu weex bii xam nga bijaaw gi lañ yaakaar ne dangaa màggat waaye baal ma wutal la ñuulal ñuulal sa kawar gi ba mu ñuul kóob bu ko defee soo taxawee ci seetu bi danañ xam ne yow mi gone nga walla loolu euh, ni ko nag li mu lay jéem a jaay naan la dama lay wan miracle ak dama def naa nga non defal ndànk kii dafa jàngi jibar rek jibar dong la jàngi woon waaye wan ko ne ko itam am naa ñelaju Firawna daal ne wax ak Moussa ni nga yow euh, kon euh, man xam naa ne yow da nga ma jéem a jaay jibar waaye danaa xam ne mënoo ma jaar fenn lii nga ma wan ni tey jàppal ma bis bis boo xam ne nii dañoo fi daje ma wan la ni la lii nga ma jaay am naa ñu la këppale fuuf ndax man maay chef de l'état te maay yàlla dinaa seet ñu la dàq jibar fuuf ndax jibar dong nga jàngi woon Moussa ni ko jàkk xool ni ko maw'idukum yawmu zina wa an yuxsharu nnaasu duxan wa salaamun ala man ittaba al huda jàppal nañ leen bisu zina ñu bari nag ne nañu bisu boobu mooy bisu tamxarit bis bi jëkk ci tamxarit am na ñoo xam ne wax nañu loolu jële nañ ci Abdullah ibnu Jubayr mu jëlee ci Abdullah ibnu Abbas Abbas mu ni eh, bis boobu mooy bisu bisu bisu kii bu mooy bisu bisub samedi la mooy bis bi njëkk ci tamxarit bis boobu nag bis bu màgg la ci juif yi bis la boo xamante nii dañu ko fonk lool bis boobu ci la la ci la ko Moussa wax ni ko jox naa la rendez bis boobu fu mu la fekk yaag ñi ngeen àndal na leen daje ci barab wala ñu daje fii ci pale bi incha allah ma walla ni man yàllaa ma yónni tabaarakallah mbokk yi bi loolu amee Moussa ànd ak Haaruna ñibbi seen kër yaay Firawna nag daal di woo nag waa dëkk bi woo assemblée bi woo boroom xam-xam yi ñépp ni leen lu ngeen xam ci li Moussa wax xamal ni ko nañ leen wut ay commission yu dugg ci àll bi fu buxaaba nekk fu maa xam nekk na leen indi fii ñu defal leen séminaire ñu def fi ay fan kenn ku ne wala sa miracle balaa bis bi nga xamante ne moom la wax waxante ak Moussa ñu dajeeg moom toroxal ko xamante ni ko du dara ñu dañ ay commission nag dugg ci àll bi dëkk lu mu ruqe ruqe lu dëkk sori sori sori ku fay yor ay péta wala nga yor fa ay ay tomb ñu woo la ñëpp ñëw mbokk yi gis nga nag jibar lu yàgg la lu yàgg la ci àddina bi jibar ak yéeme. te laaw am na ci ñaar ñoo xam ni ñoom seen baay jibarkat la woon bee dafa dee ay waane woon nañu waane goo xamante ni doon nañu mën a wax ak seen baay sax ci bàmmeel bi ci euh, laaj ko ni ko ñun dey bàyyi dafa am sunu buur bii ñuy wax firaw dafa am jënn waay ju ko feeñu wan ko miracle miracle boobu nag yéem na ko ba tax na mu woo ñu mbooleem ñu yëngu ci wàllu njibar lu ci waay xam mu indil ñu ko léegi nag kooku yorul dara wenn yet rek la yor waaye yet woowu daal moo yéem àdduna ñu bëggoon xam ndax mën nga ñu jox tegtal walla ndax mën nga ñu jox benn euh, orientation seen bàyyi wax leen ni leen euh, bu fekkente ni aw yet la yor day te yet wa di jibar kese dangeen ngeen di bàyyi ba mu nelaw ngeen sàcc yet wi ndax jibarkat lépp lu mu la mën a wax bu xasee jib nelaw moom bokkatul xamatul dara waaye bu fekkente ne nag mënu leen sàcc yet wi nag booy ba ngeen tuub te topp ci moom xam ni kooku kat ab yonent la seen bàyyi wax nag ñoom lii ci bàmmeel ba bi ñu ñëwee ñoom sax def nañu benn groupe comité d'action boo xamante ni plan bi ñu tëral mooy fexe ba sàcc yetu Moussa bi mook Aaroona waaye bu ñu ñëwee benn bis fekk Moussa di nelaw ak Aaroona ñu ñëw di yoot nag pour jël yet wi yet wi ci boppam moo soppaliku <laughs> jékki-jékki rek yetu soppaliku gaynde ñoom dañoo daw ba bàyyi fa seeni dàll tiit gi ñu tiit la ñu yoroon ko si ci jibaar foofu la foofu la des ndax yet wa dafa leen tiital dañoo daw bàyyi fa seeni daal bi ñëwee ni cel waaye nag comme firaaw na kenn ñemewul xëccoog moom kenn ñemewul la wax ak moom wala nga weranteeg moom ci li mu bëgg wala ci li mu kii moo tax ñoom bi ñëwee ñu ni cel la ci dara ñu do ñu daal di ñëw nag ñoom ci bisu ruus bis bi nga am ci leneen Moussa joxoon rendez-vous ah bi nu ñëwee saan ñu daal dem ci stade bi su fekkante ni mën nañ jël exemple sunu réew ñu ni kon stade de amitié la ñuy daje wala boog stade Léopold Sédar Senghor ñu daje fa stade bi fees dell ñi nekk tribune loge officielle ñi nekk virage ñi nekk couverte ñi nekk découverte ñi ne ci suuf dëgg mi mel ni tabaarakallah ah booba càkkaaba yi ak masoret yi préparé nañu bis bi préparé boo xam ni firawna bi mu dugg see tëgg yeeg bàkk yeeg woykat yi ñu ngi ko dar ndeysaan ba mu àgg ca tribune ba mu toog loos officiel masoret yi taxaw ni waaye léeg-léeg rek benn buxaa ba ñëw rek taxaw ci wetu firaaw na rek def benn miracle yet ba mu yoroon rek mu sànni ko mu daal ni wurr sànni ko rek mu soppali ko espèce su jaan léeg-léeg gis benn bu tëb dali fële call call call call call call comme ay yaltu yooyu mu daal jëm dem téye ñii sànni ay buum ñii ay cëgg ñii kenn xamul lu ñu yor ndeysaan ñii di modifier public bi Moussa moom ndeysaan dafa dugg si rek moom moog Moussa daal di fas kanamam rek waaxu jubal si ci ci ci ci yi gëdd leen yuuxu leen ñu leen toog yéen a bon yéen a bon yéen a ñaaw lu ngeen bëgg a def dangeen bëgg a duural yàlla. da ngeen bëgg a sosal yàlla da bëgg wutal yàlla morom waaye billaahi di ngeen xam ne tey ku àndul ak yàlla dinga am gàcc ku àndul yàlla di nga torox ku àndul ak yàlla di nga di nga matt sa baaram bi cax man maa la wax lii gëdd leen fas kanamam Moussa nanga ko amoon personnalité la ngisaan ah jibarkat yi daal di ñëw ci Moussa si yeeg ñi nga xam ñoo sañ wax ak euh, firawna ñooy ko ah, inna lana la ajran est-ce que ñun am nañu pay in kunna nahnul xaalibiin bu ñu ko bu ñu ko bu ñu ko noté firawna leen waaw waaw yéen ñëpp naa def ay ministre dinaa leen def ay conseiller dinaa leen fal lu bare bare bare te di ngeen am récompense boo xamante nii du ngeen ko rëccu jibarkat daal di taxaw la ne yaa Muusa imma an tulqiya aw imma an nakuna awwalu man alqaa qaal bal alqu jabarkat yi ne ko Moussa yaay jëkk sànni wala ñun ñooy jëkk a sànni sànni li nga yor wala ñun ñu sànni li ñu yor booba kat ñoom ëpp nañu juróom-ñaari junni eh, jabarkat bari nañu lool ëpp nañu ko kenn ku ne daal di sëg buum. kenn ko ne téye sa buxaaba Moussa neen sànni leen daal di déglu xam nuñu wax bi izzati firawna ñoo ngi giñ ci grandeuru firawna ñoo ngi giñ ci màggug firawna ak sellaayu firawna seetal lii rek nii nii mën na nii dañu dof bi izzati firawna firawna fu mu jël izza bi izzati firawna inna la nahnu l-ghalibin giñ naa ci grandeur na ak màggu Firawna ñun ñooy gañe ñun ñooy gañe Firawna ku ne daal sànni ba ñu sànneendoo seen jaan ya seen jaan yu ndaw ndawaan ya yii soppaliku ay xonq yi soppaliku ay yalt yi soppaliku ay ciibi ndax ba bari ci stade bi jaan yi ndaw léeg gis benn bu ni fëy daw yi fële ni balaw balaw balaw loolu sax taxoon na Moussa eh, commencé woon tam daal di commencé tiit waaye alquran mbokk yi moo ñu fa nekkaloon déglu alquran sunu borom nee na fa iza xibaaluhum wa isiyuhum yuxayyalu ilayhi min sihrihim annaha tasaa ndeke nee na seen buum yaag seen yet yaag commencé woon na soppaliku nag ndax booba jéber nañu bëti nit ñi ba nit ñi ñu gis buum ñu gis ay cëgg ñu gis ay sagar waaye ay jaan lañuy gis jaan yuy dox Moussa nag commencé it moom tam nit rek la nag fa awjasa fi nafsihi xiifa commencé moom tam di am tremblement waaw commencé tiit alquran ñëw ni ko qul naa laa taxaf innaka anta la ala alqi ma fi yaminika talqaf ma sanau innama sanau kaydu saaxirin wala yuflixu saaxiru xaysu ata suñu boroom daal ni Muusa looy ragal looy tiit la taxaf bu ragal innaka anta la ala yaay yaay gañe yow mi yaay gañe yaay jël drapeau bi yaa leen di man alqi ma fi yaminik sànni li sa biir loxo booba yet wi la koy wax mun ko sànni yet wi bu ay sànna yetu yetu yi dana soppeeku tal tal xafuma sanawu dana lekk lii fi nekk yëpp ndax lii fi nekk yëpp ay pexe la rek pexe jabar la te xam nga jibarkat du texe àdduna ak jibarkat du texe àdduna ak àllaaxira yàlla ko wax laa yuflixu saaxiru xaysu atta ak foo mën a jëm jibarkat du texe mukk du dugg àjjana yàlla ko wax ma ci surtout taaxa yàlla moo fa wax loolu jékki-jékki ni wurr yet wa mu yoroon laa ilaha illallah mu soppaliku jaan joo xam ne nii jaan jaa ngi naan baalaw baalaw baalaw mais bi mu ŋaaŋee bi jaan ji ŋaaŋee jaan yu ndaw yi jibar yi doon sànni dafa mel ne acier moo nekk ci jaanu Moussa ji yépp naw di dugg ci gémmiñ gi yépp dinaaw dugg ci gémmiñ gi yëpp di naaw ba jaan yi fees dell mu ni ko pandiix ba dara desatu fa ah nit ñi ni nga mu di xool firaw ni xóot di xool xaman xaman di ko xool jaan yi nag ŋaang nag wut si nit ñi wax nañ sax ñu bari dee nañu keroog mu wut si nit ñi ŋaang nit ñi wàcce tirbin yi ñi daanu ñi seen tànk dàmm firaaw na daw ba fàtte fay dal ñu dugal ko sa ci sal ci saal bi tëj ko xam nga rekk saat yi ni muy mel <laughs> tëj firaw na garde rapproché taxaw naan Moussa non Moussa gos gos gos teel teel jaan ji waay gos noo itam boo baal fas waaye kii ndeysaan Moussa toog di xool rek tët <laughs> jibarkat yi yi nga xam ñoo nekkoon ci biir stade bi di jongante ak Moussa ñu ñu honnête la ñu ndeysaan ñoom itam soo jonganteeg sa adversaire ba mu gañe la comme ni gars yi def équipe yi bu ñu footballee ba pare wala mbër yi bu ñu bëree ba kenn daan am ku doon yëkkati morom yi desaan daan ko mbër di courage mbër dëgg nga bon yàlla moo ñëw daan naa la di courage jibarkat yi noonu lañ def <laughs> ndeysaan ñu ne nga am moo ñoom tam firaaw na nga tiit tiit di lox tiit mu raw ca palem ba bëgg Moussa jëkkee sànni <laughs> jaan ja moom la la la la la firaaw na tiit nga déglu nag alquran moom ni mu ñuy nettali mi nga xam ne fekkee woon na mbir ma nee na fa ulqiya saxaratu sujjadan qaalu amanna bi rabbi haaruna wa muusa ñu ni wurr ñoom seen yedda ñu dese woon ñu groupe ci kanamu muusa daal ni seex camarade public bi ñoo ngi leen di jéggalu ñoo ngi leen di balu ñun kat tuub nanu sujjóot nanu gëm nanu topp nañu yàllay aaruna ak yàllay muusa parce que xam nañ ni yàllay aaruna ji ak yàllay muusa ñoo nekk ci dëgg ñun dañ leen caaxaan rek gëm nañu aaruna ak muusa gëm nañu seen yàlla ji loolu nag dal dina def gàcce gu rëy ci Firawna ndax amoon na gàcce ca palem ba waaye amati na gàcce fii ci stade bi gàcce gu rëy moo tax mu mer mer mu metti daane ahaa amantum lahu qabla an aazana lakum innahu la kabirukum allazi allamakum as-sahra fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min xilaafin wala usallibannakum fi juzuu'i fi juzuu'i naxli wala taalamunna ayuna ashaddu azaban wa abqa laa ilaha illa allah mbokk yi dégg leen rek firaaw na moo soxor firaaw ni ahaa yéen da di gëm Moussa ak Aarona te man joxuma leen ci ndigal man maa leen woo invité leen ah, fay jox leen lekk ak naan ah, ngeen ñëw lii am ngeen di ko gëm di ko jox loxo te man mi leen woowoon laaju leen ma sama xalaat d'accord da ma kompaloo kon yéen da ngeen ma kompaloo amantum lahu qabla an azana lakum gëm ngeen ko te laaju leen ma sama afi joxu leen mi innahu la kabirukum allazi allamakum sir kon Moussa moom moo leen jàngal moo leen jàngal moo leen jàngal njibar moo tax ngeen ñëw fii di ma jéem a di ma xat fala uqatti'anna aydiyakum dox leen rek danaa leen danaa dagg seen loxo yi danaa dagg seen tànk yi min xilaafin bu ma daggeen ni bu ma ne tipp loxo ndeyjoor nit tipp tànku càmmoñ su ma nee tipp tànku ndeyjoor ni tipp tànku càmmoñ nii laa leen def wala usallibanakum fi juzuu danaa leen takk ci ci garabi tàndarma yi ba ngeen dee danaa leen fi yeew ba ngeen dee <laughs> waaw wala taalamunna ayuna ashaddu adaban wa abqa di ngeen xam maag yéen kan moo si gën a mën a soxor da ngeen xam kan moo kan kan gën a kan moo gën a garaaw da ngeen da di jaay caay-caay maa leen gën a egg fuuf maa leen gën a sës laa ilaha illallah waaye déglul mbokk yi nit ku gëm boo xasee ba gëm rek gëm nga moom lii mu teg bëtam ñii dañu ko dépassé xaalu xaalu lan nuxsiraka ala ma jaana min al bayinaati wala si fatarana faqdi ma anta qaad innama taqdi hadihi al xayaatu dunia inna amanna bi rabbina li yaxfira lana xataayaana wa ma akrahtana alayhi min alsihr wallahu xayrun abqa sadaqa allahu l asi jibarkat yi ni ko eh na xam nga bu njëkk dañu naan yàlla ak son excellence ak son engagement ñu ne eh Firawna eh, ñun kat duñu la jënde duñu la jënde dëgg dëgg mooy dëgg caaxaan mooy caaxaan te yéen duñu jël eh, dëgg di la ko jënde dëgg ñu gënal fu dëgg dëgg ñu la gënal sut na dëgg goo xamante ni gu wér la gu bàyyi ko ci sunu borom e eh, faq di waat nañ ci yàlla mi nga xamante ni moo la bind binduñu defal lu nga defal lu la neex yaa xam gis nga boo nu reyee mën loo def lu dul tàggale ñoo ko àdduna ku dee fii doo deeyaat feneen kenn du dee ñaari yoon kenn du dee ñaari yoon dund gi rek nga mën a dagg nun dal aman naa gëm nañu bi rabbi naa sunu borom ñun xam ne ni yàllaa moom kenn moomunu gëm nañu ko ndax mu jéggal nu sunu erreur yi ñu def mooy di affronter nitam kii di yonentaam di léppam ba tey mu won miracle ñun kon duñu rëy ñun ànd nañoo moom te itam yal na nu yàlla jéggal li nga nu forcé woon ci ak njabar te teyuñu ko par force ñu bëgg ko par force ñu def ko ngir lan ku ko deful nga rey ko ku ko deful nga fitnaal ko loolu nga ñu forcé woon ñoo ngi ñaan yàlla nañ ko yàlla jéggal te yàlla danañ ko jéggal tam incha allah wallahu yàlla xayrun moo la gën fuuf te mooy ki gën waa ab xaate moom moom rek moo fi des jibar yi euh, ñu ngi continuer rek mbokk yi di wax ak moom ñu ne ko Moussa yàlla boobu ñu lay wax innahu man yaati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama laa yamutu fiiha wala yaxya képp koo xamante ni dee nga nga dem wuy ji sa borom te bi ngay wuy ji sa borom ak caay-caay ak kàccoor nga fa yóbbu na la wóor ni safara jaxanam ak moo nga la fay xaar safara jaxanam mu tàng jër boo xamante ne boo yàlla sànnee doo woo xamante ne nii tabaarakallah métit woo xam ne nii doo fa dee doo fa màggat bis bu ne rek muy gën di tar bis bu ne rek muy gën di metti mu ne ko man yaatihi muminan faqad amila salihat fa ulaayka lahum darajaatul ula gis nga képp koo xam ne faatu na te bi ngay faatu yaa ngi gëm sa borom di jëf-jëf ju rafet di jëkkal di moytu te xam ne yow mi gëm nga ni yàlla kenn la te gëm ni yàlla mi moo yónni Muusa mii nee na fa ulaayka ña ña ña ña dee noonu lahumu darajaatil ula ñooñu ñoo am foofu daraja yi gën a kawe ñoo gën a am ngërëmal seen borom subhaanahu wa taala ñun kat ci loolu la nekk te kat daraja ji gën a kawe paasewul jannaatu adnin tajri min tahtiha al anhaaru xaalidina fiiha wa zalika jazaau man tazakka jibarkat ni ko àjjana joo xamante ne nii mi ngi tudd jannaatu adnin jan àjjana joo xamante ne nii euh, ca suufa àjjana ja al anhaaru ay dex ay seew nde ñoo fa nekk xaalidina ñun fa ñuy sax waaw zalika loolu kat jazaa'u man tazakka mooy pay ñi nga xam ne nii ñoo sellal taskee seen bakkan ba seen bakkan tegu ci li yàlla bëgg loolu rek suñu pay kon nag booy bu nga reynu ñun gëm nañu yàllay yi Muusa ak Haruna te dootuñu ko wedd mukk doo dara doo tus waaw firaaw nañ leen waaw booyee boo waaye nag dinaa leen rey yéen ñëpp daal di jël jibarkat ya di leen sans morceau par morceau ñun ñëpp ñu tëj buntu stade bi gendarme yi jàpp leen ak police yow ci nga bokkoon waaw a ci jaar fi ñëw ñu simi sa grand boobu teg daal lay jéng teg te naa dafa xam mbugal mbugal mu bon lay def wax ne nii day daanal tipp sa loxo ndeyjoor deret ji gas-gas yi fekk ñu ngi yeew sa baat bi ci kaw mënoo daanu mënoo def deret ji yureeku ñu ni tipp sa tànku càmmoñ yépp di di gas-gas yi ñii def lee mel na mel na bisu tabaski daal ne nit ñi def jur gi noonu la Firawna doon def jibar jibarkat yi di leen rey benn par benn di leen rey benn par benn waaye mbokk yi am na benn waay bi nga xamee ni mbugal mi tar na ba tar te kooku mooy xasqiil xasqiil mi nag waxoon naa leen na ngeen bàyyi xel ci moom mooy menuisier ba nga xam ni moom la yaay Moussa waxoon ni ko daajal ma kees gi dugal ma ci sama doom ji gis nga mu fàttali ngeen ko xasqiil bi Moussa màggee ba nit moo dem nu ko préparel te daw dégg naa ndéy ca pale ba ñu ngi lay jéem a jàpp asqil mii mu moo ñëwaat moom la alquran di ñu nettali moom ba mu ñëwee dafa ni wa qaala rajulun muminun min aali firawna yaktumu imaanuhu ataqtuluna rajulan an yaqul rabbiya allah wa qad jaakum bil bayinaati min rabbikum wa in yaku kaziban fa alayhi kazibuhu wa in yaku sadiqan yusibkum baadu lasi Eh, yaidukum inna allaha la yahdi man huwa musrifun kazzab eh, bi ñuy dee rey bi ñu dee rey jibarkat yi xasqil mi dafa ñëw moom laa waxaa ne jenn waaye dafa ñëw di nëbb ngëmam moom te min aali firawna ci moom ci copte yi la bokk ci famille firawna la bokk dikk leen waaw mu ne da rey ñoo xamante ne nii waxuñu loolu ni yàllaay seen borom te itam biñ ne yàllaay seen borom boole ñu ko ak waxi kese indi nañu ay lay wir indi nañu ay preuve liñ joxe nii preuve la yoo xamante ne mi ngi bàyyi ko seen borom ndax lii ñu tegadoo suñu bët ñu ñëpp wax dëgg yàlla ah ah weddi gis bokku ci ñu ko teg nañ suñu bët wax dëgg yàlla waaye nag bu fekkente ne sax da koo def wala mu wax ko sax te yéen gëmu leen ko su fekkee li mu wax ay caaxaan la wala du dëkk waaye bàyyi leen ko feneen man kay xalaat naa ne bu fekkee ne li mu du dëgg moom doo nga ciy loru waaye bu fekkee ne dëgg la nag wax dëgg yàlla jarul ngeen di ci rey kenn yàlla kat du dimbali kuy jéggi dayoo du dimbali mu ko koy jalgati te yéen koy bëgg a def ndeysaan moo tax ñu ne xasqil mii ndeysaan moom bokk na ci nit ñi nga xamante ne mus ñu si jiital xërëm mus ñoo jaar ci jeunesse moo xabibu na jaar te mooy gaan ak yontu yàlla isa ga alayhi salaam boobu ñuy wax fële ci surtu yaasin wala boog surtu jumaa qaala al ansaari man ansaari ila allah qaala al xawaariyun nahnu ansaarullah faman taaifatu ila axiri wala boog uh, yaa layta qawmi yaalamuun bimaa xaafa li rabbi wa jaalani min al mukramiina uh, na jaar foofu la nekk lu ñàkk xëy na bu ñu ci ba ñëw ci xawaari yoone ñàkk ñu mën ci yeneen leeral ni ngi tam Seydina Ali ibnu Abi Talib karramala wajhahu moom tam musul sujjóotal xëram moo tax Habibu Najjaar yonent yàlla Isa Xasqiil yonent yàlla Muusa Ali karramala wajhahu ibnu Abi moom itam musul sujjóotal xëram kooku moo wax wax ju rafet ji wax ju jekk ji la mu ne nag man daal loolu laa foogoon waaye ndeysaan moom itam soxnaam sa ginnaaw bi nga xam ne firaaw na def na ñaawteef fii mu ñaawteef bu jéggi dayoo soxnaam sa moom itam moo tudd maasitata maasitatu banaatu firaawn aw maasitatu aali firaawn ñu ni kaanat muminatun min imaa illahi saalihaat illa annaha kaanat maa banaati firaawn taxdumuhunna wa kaana min qissatiha ma axbarana bihi al asatiz an said ibni jubair an ibni abbasin anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal lamma asra bi allah marartu bi raihatin tayibatin fa qultu li axi jibril ma hazihi raiha fa qaal raihatu mashatu ali firawn wa awlaadiha jële nañ ci ablaay ibnu jubair jubair mu jële ci ablaay ibnu abbas radiallahu taala anhuma ñu mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni bi yonent bi sallallahu alayhi di rëñaan di jëli julli juróom ànd ak jibril alayhi salaam jibril dañu romb benn barab ñu jékki-jékki dugg foo xamante ne xet gu neex moo fay xeeñ xet goo xam ni bi mu ne carax ci bakkani Moustapha sallallahu alayhi wa dafa ne ah, laa ilaha illallah ah jibril maa hasihi raxiya waa xet gi moom xeetug lan la nee na jibil ni ah, xet gi de mooy machetu ali na mooy jabaru xasqiil ndaw si nga xamante ne moo yoroon salon coiffure bu doomi na yi moo leen daan létt moo leen daan defaral seen bopp yi ba ñu baax ñoom de la yàlla dëkkal fii di leen beer ndeel ñu àggale fi seenu dund ba yowmal xiyaam yoon bi sallallahu alayhi wasallam ko jibril nettali ma lool nu mu demee woon eh, jibril ni ko machta mii day bi Moussa toll ci diggu woote bi ba reyoon jibarkat ya ba ñu dee jabaram jooju maanaam jëkkëram jooju xasqiil ba mu waxee ak mbokk ya nëbbu ngëmam jabaram dafa gëm moom itam ànd ak moom waaye comme moo yore salon coiffure doomi na yi benn bis nag muy létt kenn ci doomi firaw firawna yi bi mu koy létt nag peñe bi mu yoroon wadd mu faraat peñe bi daal ne bismillah bi mu nee bismillah doom ji daal ne ko ah machita yow sama bàyyi nga jublu ci bismillah gi wala yàllay muusaa nga ci jublu machita nga déet man kay sama borom laa ci jublu te sama borom mooy yàllay aaroon ak yàllay muusaa eh, man moom laa gëm xale bi ne ko lii nga wax nii de bu fekkee dëgg la ci dinaa la booleeg sama papa te su ma la booleeg sama papa la xam ne dina la toroxal mu ko d'accord sa papa bu ma reet rey nañ rey nañ ñeneen moom sa moom rey la rey mooy métier waaye nag ku ñu rey doo doo dee ñaari yoon waaye man de sama ngëm du ma ko nëbb kenn man daal gëm naa Moussa gëm naa yàlla Moussa te ci loolu laa nekk bu ma ci dee ci laa nekk gis nga jigéen ju diñ mbokk yi jigéen lislaam li billaay li jigéen daj ci lislaam kenn daju ko gaa yi leen bëgg a yàq rek waaye ñu gàcce nga laa ma jigéen ñi jégal lii rek xale bi mer lool dem ca baayam ni ko papa man dat machtakat euh, gëm na Moussa gëm yàllay Moussa mu ni ko ah? ko waaw dama wax ak moom léegi peñe bi wadd mu ni bismillah léegi nag booy boo nga woo ko léegi wax ak moom firawn daal yónnee ci moom ko waaw li may dégg moom nu mu demee mu ni ko loo dégg mu ni ko dama dégg ñu ne nga gëm Moussa ak yàllaam ji mu ne ko waaw ci lu wér gëm naa ko de gëm naa Moussa gëm naa yàllay Moussa loolu la yàlla dogal mu ne ko waaw bu fekkee lii nga wax mi ngi ci yow de danaa du gis nga ni ma def say morom mu ko waaw gis ni ma def mu def say morom kay moo ma mel ni ma mel xam naa dee du benn ñaar la euh, dee du ñaar genn la kenn du dee yoon mu ko damay wax ngay wax mu ne ko ah kenn du dee ñaari yoon de mënumaa gën samay nawle mënumaa gën samay morom. ndax la ngeen leen def gis naa ko te man daal gëm naa man daal gëm naa Moussa gëm yàlla daal di sonné alerte daal di woog raykat yi daal di taal leen fuur bi ñu taal fuur bi ba fuur bi xonq cur ndeysaan laa ilaha illallah mu ne ko di nga weddi wala doo weddi mu ne ko tey laa gën a gëm mu ne cas doom ji ndaw ji parentere bi ndeysaan fekk mi ngi nàmpal benn xale mu ne cas doom ji ndaw ji ubbi fuur bi ni ko ci yem mu dégg xale bi ni muy tàkk ci biir ci fuur bi ni toll mel na koy lakk euh, ganaar subhanallah mu ne ko di nga tuub wala mu ne ko tey laa gën a yaa gëm yàlla loolu nga koy def ñoom defuñu dara man mii maa def man mii gëm man mi gëm ko war a def nii man yàlla laa gëm sama borom laa gëm gëwuma kenn mu ni cas doom ji góor ji nga xamante ni mu ngi toll ci juróomi at jàpp juróom benn at ndeysaan commencé de miin yaay ji mu ni tipp tànku ndeyjoor bi daal di ko sànni ci biir fuur bi ni ko di nga tuub wala doo tuub mu ne ko duma tuub te laa gën a gëm mu jël xale bi ni ko meng ci fuur bi amoon na ñeenti doom doom yëpp noonu ko firaaw na jëlee dugal ci biir fuur bi xale yi lakk ci biir ba ñor xom mu ko di nga tuub di nga di nga bàyyi yàlla yi Musa wala ko bàyyi ko duma mu jël ñaari tànk yi machete yi ni ko tipp sànni ci biir jàpp firaaw firaaw na jàpp machete ak i doomam sànni leen ci biir fuur bi ñuy lakk ci biir muy xàqataay mook xaamaan ak ñi ñu àndal seeni ñooñ mais bi muy def ñaawteef foofu nag euh, jabar ji Asiyatu bint Mazaahib mi ngi ci balcon bi tiim leen waaye bi malaaka yi di ñëw di jël si ruuxu Machita ak doomam yooyu yàlla daf ko defal Bachira daf ko defal kashfu moom moom Asiya mi ngi seen asamaan saa ngi weex tal ak i malaaka nii mu gis ni ñuy jëlee ruux ruuxu Machita gi ak doomam yi di leen yëkkati ñu jëm kaw ndeysaan moom tam mu daal di gën a gëm dolli gëmam moom Asiya Firawna bi mu defee téef googu ba pare daal di ñëw fekk Asiya taxaw ci kaw balkon bi mu ni ah <laughs> euh, Tiavi man gis nga sa gaay yi ni mu leen def ah, yaakaar naa ñii de moom waaw ah, dootuñu ko doole de rey naa rey boo xam ne bu ñaaw laa rey ñii kay moom yaakaar naa ni ko xool ci ñoom rek dootoo dootoo def li ñu def man de moom nii rey rek man daal ku rek ma rey man moom ku ma rey boobu temps Asiyatu ngi mera mera bi mu jékki-jékki soo bokkul yow Firawna yow lan moo la dal yow loo jotee ñii ngay rey yow da leen moom rey wu ñaaw wi leen di rey man gëm naa yàlla yàllay Muusa ak yàllay Haaruna gëm naa leen te dootuma leen weddi ba mukk firaw ne yàng ni ko ah damay gént wala damay yow nga nil mu ne ko gëm naa yàlla Muusa ak Aaruna mu ni ko yow ndekkete ko ndof gi da dal maasiyatu ak kii moom moo lay commencé càpp mu ni ko dara dab gëm naa leen te dootuma leen weddi kenn mënu ci dara mbokk yi asetu bàkk na njaag waaye njaag ñëwul kon xam nga nu def ñu teg fii sunu baaram incha allahu ba àjjuma jee ñu ñëw ñu xool nag asiyatu mii di jabaru firawna fan lay mujjeeg na incha allah seen mbokk oustaz Alioune Mbaye la woon ci waxtaan wi euh, ab Ablaye Dieye nekk ci technique bi asalaamualeykum aleykum rahmatullahi taala wa barakaatu.